douze mois sur douze dal, jigéenu Kër Madar ñu ngi ci tali bi di jaay kon lu melni tay tey leen ko président Babacar Pascal défalé ak le mouvement Dolimaki maki, sant yàlla la ak mbégte ndaxte li ñu leen defal tay nga xamante xam-xam la soxna Awa bi bam mi leen ko defal tay mënu ko jël ci yeen jamais parce que dugg ba paré lu de quoi qu'on puisse dire ak nu mu mëna démé rek li mu def ci yeen tay mënu ko jël té néna na fii ci suba wax na leen ko waxaat na leen ko fay continuer de leen suivre ba mbir mi gëna a moi lan defal na ay transformation ñakul ne mom nga xamanteni mom maîtriser compétence bi su dina dina ko faram bu euh, mango Dakar ak Ginger, ak euh, yooyu yëpp nekk na loo xam ne tey lu baax ci nit la kenn ku ne xam ne nit ñi léegi ak wéradi gi nit ñi naanatuñu boisson gazeuse yi ndax estomac yeeg feebar yi xol yeeg feebar yi biir yi mais lii nga xamante ni suñu meññee meññeenteefu réew la ñu transformé ko ba mu nekk si non danga da nga ciy am mbégteeg put mooy moonaam maanaam booy naan day neex mais da ci amaal amaale wér-gu-yaram boo koy naan kon loolu ku ñu ku la ko jagleel grâce au président Babacar Pascal Dione famille nee na ñu ngi lay sant di la gërëm ci lii nga ñu defal tey ba pare nag am na leneen lu fexe parce que ci suba salle bi dafa feesoon dell mais femmes yu bëri dañu dem añi mais ñu ngi ñëwaat nii par benn benn yéen a ngi gis waa crédit mutuel ñëw nañ fi parce que daf leen a bëgg jàppale ci formation crédit mutuel nekkul ne daf leen di crédit mutuel la leen booleen mu leen di formé déedéet dafa am noo xam ni moom la def ba mën a tax crédit mutuel mën leen di jàppale ci formation ci ci ci ci financement parce que nag nit ki su nekkee nga ko ba pare war nga koo jàppale nag lu mu mën a jógee amee tànk pour mën a yëngu

soo ko ci dee yokk ab xam-xam yaakaar naa ne loola dina ko itteewoo te lii nga leen defal nii tey suñ ko bëggoon defal seen bopp foog nu génne xaalis seen poos fay nit pour mu defal leen ko yow nag loolu yëpp yaa ko gàddu boole koog liñ fi indi yëpp kon chef du village nee mi ngi lay gërëm di la sant ah di la xamal nag Kër Madaara moom ah ku leen lebal eh, eh, ker ñu fayee la guddi parce que Kër Madaara nit nit leen ñoo xam ni ñu am jom lañu ñu nangoo liggéey. surtout nag suñu jigéen ñii ndax ñun amuñu loolu seen jigéen ñi suñu jigéen ñi ku leen ci jàppale ku ne ci li nga xam dañuy daan seen doole ñun loolu suñ la ko waxee suñ la xul yëg nañ ko te gis nañ sa taxawaay ci dëkk bi kon chef du village ne li mu ngi lay gërëm di la sant ndax lii mooy état parce que état mënul nii ñi nga xam ne ñoom lañ xam ñu am ay ndoo baytaak ci état bi rek ñoom ñoom ñooy defar réew mi déedéet mënut a dajale day am ñoo xam ne ni dañuy bokk ci état bi di lé jël ci seen alal bopp di dimbali nag peuple bi nga xam dañ leen a ëpp seen euh, loxo juru seen ginnaaw surtout ku mel ni yow ndax yow man soo amoon ñett ci kees wala ñeent yaakaar naa ni kon fii nu nekk nii passé nañ ko bu yàgg ndax it ba ngay laata génn kees kees ku ne xam na Pascal nga door a génn ñëw ci département bi département bi ñu ngi doon jot seen wàll danoonu la dégg kees waaye nag comme dugg nga Kër Madaro nun moom xam naa ni la doon def ko def Kër Madaro xam ne nit politiciens yëpp a ko soxla guddeeg bëccëg suñu portable yi noppalootul dinaa ñëw ak dinaa suba laay ñëw ak ginnaaw suba ñëw ak kañ laay ñëw ak loolu lañ jàppoo guddeeg bëccëg yéen ñi fi yàlla indi ba pare nag lu ngeen def lu nekk da ngeen di fexe ba di ko yëgal ñëpp parce que politique bëggul kenn wala ñaar politique mbooloo la bëgg parce que li nga xam ne moom la ñu war a moom la ñu war a amee nit ñi ëllëg mooy lu ñuy def lu ne ñëpp yëg ko lii rek man bi ma ñëwee xool yaakaar naa ne côté bu ne gis naa fi ñoo xam ni bu ñëwee bu ñu delloo man nañoo leeral ña féete ak ñoom ba liñ fa jëlee mu tasaaroo ba dëkk bépp boo ko yëg kon chef du village ne mi ngi lay gërëm dina sant musaa mii nag ah sunu sunu doom la sunu jarbaat la ah boobaak léegi nag ah, mi ngi topp ci yow saal bii nga ne wala beneen bële lañ ko fare woon la ko indi conseil régional te yaakaar naa ne dëkk bi ñoo ko defaloon ndax ba waxtaanee ñu nit ñu ne comme Moussa loolu la bëgg nañ ko jàppale ci boobu côté ñu jàppale ci boobu côté côté boobu moo ko indi conseil régional ah boobaak léegi nag noppalul mi ngi dox di ñëw waaye nag bëgg naat mu gën a yaatal di waxtaan ak kilifa yi parce que nag kilifa loo dem dem day am benn bés xam da ngay soxla kilifa kilifa nag comme da nga koy soxla yàgg rek da nga koy soxla ak loo mën di xeeru del ñëw di waxtaan ak moom bis bu taxaw jot rek mu taxawal la ndax ab dëkk nag ku cay liggéeyal ku ne liggéeyal borom dëkk ba borom dëkk ba laa war bu bis ñëwee rek mu taxaw waxal na ni wax dëgg yàlla yaa ngi liggéey sama dëkk bi lii ak lii ak lii loola ñun moom lañ bëgg ndax Baye Diop moom kër ma daaru ñàpp la yemale bu sañoon kenn ku ne wuti indi ndax ku wuti doo ko génne Kër Madaar ku wut boo ñëwee Kër Madaar da koy teg ñii koy jëriñoo kon loolu it dañ ciy sant bu baax a baax di la gërëm kon Pascal Seydou Village ne la gërëm na la sant na la. tey nag dama am mbégte lool ñëw teew fii Kër Madaaru fekk si jigéen ñu baax ñii ànd ko ak sama rakk Moussa Gueye maa ngi nuyu chef de village di ko sant di ko gërëm ci oyofteem eh, porte parole am wax na dëgg. li ñu waroon def mooy ñu waaxu directement dem këram nuyu ko waxtaan ak moom yëgal ko li ñu yéene ci dëkk bi ak li ñu fi war a def tey heureusement que loolu Moussa def na ko dem na ba ci moom waxtaan ci ak moom waaye terewul bi ñëwee ñun waroon nañu faa jaar waxtaan ak moom saafuwante ak moom dama ne am naa mbégte tey parce que man bu may def politique lu mel ni moo tax def jëf joo xam ni day jëriñ doomu aadama yi parce que def politique di wax rek yomb na mais def loo xam ni dina jëriñ nit ñi man noonu laa gisee politique Kër Madaaru nag yàlla moo ma boole ak yéen ba ma jàppante ak Moussa Gueye ba léegi te Moussa doon koo xam ni war ngeen koo sant gërëm ko Moussa saa yu ñëwee ci man njëriñu Kër Madaaru rek la may wax soxla boppam da koy fàtte. man may def léeg rek ma xamni ki ngor rek lay wéyee ma am lu def ak mom mais duma wax ma daru rek te lu tay bi ci la bok sama jigen ñi bëgg na ku leen former sama jigen ñi bëgg na ku leen financer way way bëgg sa dëkk wu lolu ma bëgg na ngeen tacc Moussa bu baax man nak dafa am contrat bu signé ak wa keur ma contrat bi lan la contrat jappalante man limay def mu jëm ci yeen loolu la len manal muy lan suma gisee lu bax ñukoy defal ñeneen te mu woor mané li man na leena jëriñ yeen ñi ki def lu bax loolu ma dem waxtaan ak mom motax formatrice bi ñu koy di sant bu bax soxna Awa mu don ko xamni li muy def da cee yewen mom bokk na ci ñi xamni dañ may soñu sax pour ñu def lu melni kon xam-xamam yemewule ko ci boppam bëgg na mu yaatu ba jigéen ñëpp jot ci ba jigéen ñëpp mën cee jëriñu kon madame laa formatrice maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax lii may jéem nag yemul rek ci formation bi parce que defe naa bi ngeen xëyee am na benn banque boo xam ni yónnee na fi ab ndawam mu waxtaan ak yéen wax leen nan lañu ñu fas yéene gunge leen. ba ngeen am ay financement ci banque boobu man dama seetlu ni financement mu jëm ci jigéen ñi wala mu jëm ci xale yi li ciy gën a jafeñ mooy garanti yi nga xam ni banque yi da koy laaj xam nga banque bu lay lebal moom day fekk nga garantie da nga am sa kër nga tayle ko ci banque bi mu lebal la ngay fay boo fayatul mu teg loxo ci kër gi wa ilaa nga am xaalis bu bari déposé ko fa mu lebal la ngay liggéey boo amee problème mu jël ci sa xaalis boobu mu fay bor bi mais ne. loolu buñ ko dee laaj jigéen ñi wala ñu koy laaj xale yi day jafeñ parce que duñ ko am foofu nag la njëriñu politicien am solo looloo tax ma waxtaan ak banque boobu man ci sama bopp maa yëkkati xaalis bu takku dugal ko ci banque bi bàyyi ko fa dootuma ko laal ci xaalis boobu la banque bi di jël di liggéey ak yéen xaalis boobu mooy garantie bor yi ngeen fa am loolu aussi na leer. euh, lama fa bayyi nekul pour di fay bor bi mais pour remplacer garantie yi ngeen waroon indi pour ñu lebal len kon nak bu len japp ni khalisu politique la dedet khalisu banque la pour ngeen man di liggéey khalis bobu ñi ko mom moy ñi bëgg a ño xamni am nañu projet té amuñu luñu ñu man nak ma gis ni jigéenu Kër Madaaru sawar nañ waxtu wone ne jaar naa ko fii ci talibi fekk len ngeen tok ci talibi di jaay. mais li ma gis ngeen di jaay mooy ay fruits yu frais moo xam màngo la wala orange la wala sitron wala leneen mais da ngeen koy wit rek ñëw di ko jaay te loolu ñuy wit di ko jaay garab dina dem ba Moussa ni ñu wax di loolu dem bay meñ ba meññatul ah waaw garab dina rat boo maanaam boo ko dee bi wit di jaay di nga yegg foo xam boo ñëwee doo am la wit kon bu fekkul nga fagaru mel na liggéey boobu nga doon def day xaw a taxaw man damaa bëgg nag yéen waa Kër Madaaru bu mango ñoree ngeen jaay mango bu mango jeexee ngeen di jaay jus de mangue loolu day tax at mi yëpp da di man di def commerce ngeen jaay jus bu bu bu frais wala ngeen da jaay ay jus yoo xam ni ci liggéey bi ngeen di liggéey ci lay jóge pour man loolu mooy politique de développement loolu may jéem nag man jéemaluma ko sama bopp parce que du ma candidat wu dara Macky Sall moo tax ma koy def. mom lay jappalé ci walu politique nit ki nak bokoy jappalé dang koy defal lo xamni day jëri nit ñi lolu mo waral li kon limay sentu ci yeen nak moy ni ngeen ma mëna a bor bi moy woteel Macky Sall bu joté bu len ci kenn ëpp taxaway té xam ngeen ni weer bii di ñëw rek février ci ñaar fukki fan ak ñent dinañu woté fi élection présidentielle. maanaam dinañu wote pour falaat Macky Sall man foofu rek laa yem sax du ma wax pour ñu fal keneen déedéet mais dinañu wote pour falaat Macky Sall ma bëgg nag waa Kër ma daaru joué ci rôle bu important rôle bu am solo ba bu ngoonee bu ñu nee wiiw ñu xam ni Macky Sall am na fii lu am solo parce que am na fi responsable boo xam ne ñëw na fi bokk ak jigéen ñi bokk ak góor ñi ànd ak ñoom liggéey ba mu jur résultat bi loolu moo waral lii moo tax ma bëgg vraiment li ngeen séentu ci man di ko xaar ci man. dina ci xar sama tank tubey dina fexé ba yeen ñepp formation bi ngeen def muy way pour liggéey dina fexé ba ngeen am financement pour di ci liggéey financement du yem ci li rek am ko xamni xelam ci commerce la dem par exemple wala xelam dem na ci leneen lu dul li koko aussi man na bok ci ci financement bi Moussa ma bëgg nga yaatal ko bu ko yemal rek ci say nit boy def lu baax defalal ñepp lolo mën tax ki andut ak yow xamni ki kuma yene la mu ñew and ak yow kon booleel waa Kër Madaaru yeb bul xol ku bok ci yow ak ku bokul ci yow lolou de la la sante parce que lu bax bokay def mom te mu joge ci sa xol parce que politique nak du dara lu dud yene ku xolam rafetul du sori ci politique ku ta partager limu am du ci sori man nak luma yalla denk man dama ko paske seddo ak doomu aadama yi parce que bimay may awma dara lu te bu may demit duma yobale dara kon lepp fi lañ ko fek lo fi fek war ko bàyyi nak momoko da ci war and ak xel. looloo tax ñun ñuy partagé di nangu li ñu am ñu bokk ko ak yéen kon nag vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nag ni campagne bi léegi mu ubbi bu campagne bi ubbee incha allah dina ñëw fii Kër Madaaru comme ni ñu daan def rek def animation def xumbal ngeen xam ni Kër ma Madaaru daal ci Sénégal la bokk te incha allah lépp lu ñu man dina leen ci jàppale bu baax a baax chef de village maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant bu baax a baax ni ni Moussa doone sa doom jàppal ni Babacar Pascal sa doom la lii ñuy jéem defaluñ ko kenn ku dul yow parce que dëkk bi bu jëmee kanam sa ndam la yow mii sa xool sedd na guy yaa ko wax ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax kon mbooloo mi yooyu kaddu rek lañ fi indi woon ak ak ak Baye Cheikh mu waaw Baye Cheikh tamit vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que saa ñëwee rek Moussa nee na mënul fay Baye Cheikh mu ngi koy sant di ko di ko gërëm bu baax a baax donc euh, li ci des rek mooy seen xel na dal dama bëggoon xam nag ndax. banque biñu fi yone liñu waxtaan ak yeen ndax lolu doyna len wala doyu len parce que ñun duñu yem ci ben banque rek dañu waxtaan ak yeneen banque mais ki ñu ñëk waxtaané la len yone pour mu wax len lu leer ñom seen bor numu muy démé ñaata lañu wona mëna leblé leble seen intérêt nu mu tollu kenn ku ne nak ya xolé sa bop ba xam ndax li man nga ko wala mëno ko lolu aussi amna na ci solo té it nag bu len gatchel Moussa bu len ma gatchel banque bobu ñuy liggéeyal ñun dañ leen wax ni. fii ñu leen di yóbbu ay jigéen ñu takku lañ ay jigéen ñu bëgg liggéey lañu kon dañoo bëgg ngeen accompagner leen la ngeen ñu mën a récompenser nag mooy bor bu ci nit jël na ko fay normalement bu ko defee mu mën a jëlaat leneen loo xam ni moo ëpp la mu jëloon ñëpp noonu la ñuy liggéeyee milliardaires yi ngeen di dégg yëpp ci lu tuuti lañ démarré mais dañoo laxasaayu yeew seen ndigg gëm li ñuy def gëm li ngeen di def nag xam naa ne moom am na fi waa Kër Madar moom ku leen romb rek xam ni ñii. ñu gëm seen bopp lañ ñu gëm liggéey lañ li ci def rek mooy yàlla may ñu euh, li ñu sumb ñu yeggali ko ak jàmm bu ko defee financement yi mën a ñëw ngeen mën a liggéey jàppale seen i njaboot jàppale seen i borom kër loolu moo tax ñu naan jigéen boo ko jàppalee rek kër gi yëpp nga jàppale. li ni seen ci li ci sunu kanam boo agsee yàlla nañ ci am ndam yàlla buñ ci am sunu xol sedd na sunu xel dal na sunu yaakaar tàbbi na. parce que ñu ngi gërëm yàlla di gërëm yonent bi di la gërëm ñu ngi ñaan ci yàlla yonent bi jëmmi Serigne Touba yéene ji nga am ci Sénégal yàlla na ko yàlla mottali dafa mel ni Moussa Gueye mii li ma ci waxoon ci am na bis mi bis mi wax ko lii nga ko wax nee naa ko politicien du gedd du mer du fay du lifi nit la koy yokkal mooy ëpp la koy wàññil waaye képp ku lay féewaleeg nit ñi wala ku lay wutali noonu ma nga lay gaañ politique du gedd politique du fay politique du bay képp ku la mere fexeel ba mu bëgg la ku la woon ginnaaw fexeel ba mu won la kanam lii nga ci wax itam ci Moussa Gueye ñun am nañ ci yaakaar ndax mag ñi kat am na lu wax jaan ju mag amul jaan ju ndaw amul ku jaan màtt bul la lugul nga dee kon mag am na solo ci politique waaye li ëpp solo ci politique mooy ndaw lu am mbooloo te Moussa yàlla dimbale nu ko ci dëkk bi wax dëgg yàlla taxawaayam ci dëkk bi rafetlu nanu ko li ci war lépp mi nu koy defal lépp lu mu ñëw ci yéen ak lu mu waxtaan ci yéen luy yokk dëkk bi ak luy changé dëkk bi ak luy taaral dëkk bi ak lu koy jëme kanam rek lay def kooku nag ku am njaboot guy dox lool ci dëkk te ñu di ay nit. amul amuñu loolu Kër ma Madaaru parce que Sénégal gépp su baaxoon te Kër Madaar baaxul ñun suñu door a baaxul kon fu waay liggéey ak fu waay mën di ñoddee luy taaral dëkk bi ak lu ko yokk wax dëgg yàlla dañuy kontaan ci loolu di ko rafetlu lépp lu mu wut ci yéen lu ngeen ko ca sant ak la ngeen ko ci diggal lépp wax nanu ko lu ngeen ko mos a jox pour Kër ma Madaar amul lenn lu ngeen ko mos a jox pour Kër Madaar mu ñëw jaar këram te jaarul ci dëkk bi ñu ko moom jox leen ko yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla yokk taxawaayam. yaakaar ji nu am ci moom am ko ci dëkk bi yàlla bu ko yàlla tas makki Sall yaakaar ji ñu ci am yàlla na ko yàlla yontu bi jëm bi Serigne Touba àggale bu nu demee ba élection yi ñëw ma dem dëgg gëj na maa sànni carte waaye gi yoon day fotta woon naa ba yor sama carte maa ngi xaar rek bis ba bu soobee yàlla yontu bi yàlla bu ko wóote dana gañ 100 pour cent barke Serigne Touba Mbacke. Macky nag li tax ma bëgg ko an la ma dugg 61 moo tax ma porté volontaire pour jàppale Macky Sall. kon kooku sama seex la kon nag bu sa seex wutee dara te amu ko kon ñun seex yi xaw ma ñu ñu war a def lancé naa appel képp ku nekk 61 nañoo jàppale Macky Sall. lii su ngeen ko jàppee dari métier mu noble boo xam ne entreprise bu dul fay la ba sëy sët président lii nga leen may tey moo gën téeméeri million yoo leen jox ndax lii c'est une entreprise li tax ma ne c'est une entreprise déchets yi ngeen xamee ne moom ngeen doon jël am seen mango mu nëb ngeen sànni. bu len nexé mango joy sax vinaigre mën nañ ko ci mangue bi sax dañ ci défar vinaigre kon amul dara luy déché dama len né wax lancement tout rek la len wayé dess na lu bari ñun jigéen ñi nak li nga xamanteni moy suñu yité Pascal ñu ci doxal suñu xol séddu guuy muy lu mënul won té mu dimbali ñu ci muy li ñuy def tay ku ne xamna na li bokay def di nga fay xaaliss bu wéx tal def Babakar Pascal mi ñew taxawal ñu ci jàppale ñu ci dimbali ñu ci bañu commencé ak mom ba légui nak yéeneem ci jigéeni kër ma daaru ba tey teggeegu ci tankam su ci téggé won tankam batay téggina sama bos ndax man li rek la xam liggéey man ba may duggit lu leer la wax liggéey la xam ku ñu jàppale ñu liggéey lañu xam té mom mi bi mu ñëwé téggu ci tankam benn yoon limu bëgg ci limi def yalla nako ci yalla may Macky Sall mi ko tax di jog yalla na yalla yàlla ko yàlla may ndam ak mom mi mu andal ci barke yonent bi man de ben carte la ak sama carte wa keur te xamna ni lay rek dem jox ko Babacar Pascal mi mom mi la ko jox ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla yàlla ko may ndam bay jom nak ñong lay sante di la gërem ndax yaay borom dekk bi te ku jog nga jog laman miit yit ku jog mu jog bawulen daray dekk bi yalla na len yalla defal